des internationaux mon comme premier vice président cher président son dit, trésorier ça veut dire que tous les jours on parle que le football au Sénégal kanam Sénégal et je crois que boy, moi euh, yi Sénégal. am ci footballu Sénégal demi-finale si compétition entraîneur demi-finale coupe du monde donc euh, qualifier le Sénégal CHAN après nek entraîneur équipe A aussi limay wax rek ci mom modi témoignage bi euh yalla nako yalla xari aljana souf wef ci kawam ñaan gi fekk ci diga ñaanam diga fekk ci bamélam euh amna rafet na ñor trop ci mom ndax eh, mën na wax ni eh, xamna ka en tant que nit xamna ka en tant que papa xamna ka en tant que conseiller ma ngi eh, wax wa famiyam yep at senegal yep euh di len ko jalé Euh, di de defal seen xol euh, di wax ni nit ku baax dem na am na rafet naan jot ci moom yàlla na ko anecdote bi gën euh, mooy tey jii si suba bu may yow waxtaan nañu ba waroon gisee pour ce réunion bi ñu am semaine prochaine bi may jugee Namibie bi may dem dañuy jot jotante nañu ba mu ni ma boy boo ñëwee il faut que ñu gisee pour le bureau et tout ça tey jii suba tamit à midi on s'est parlé donc euh, on devait même manger ensemble après ma bàyyi ko moom mu dem añ at zam at sunu xarit sunu ñetti xarit at le président Seydou Sané di wax rek ni euh, Joseph nii rek la mënoon demee Joseph euh, mënul woon tàggoo et anecdote bu gën a bi rek moo di avant match bi mag may woo naan ma waxal gaynde ni leen qualification bi tay di mën nañ ko am tay di fofu c'est Afrique du Sud et je crois que euh, anecdote yi Joseph Koto moom mën naa ci wax ludul ludul lu jeex mais li gën am solo rek modi euh souffrirul bi muy dem et di wax ni yalla nako yalla yàlla aljana euh yalla nako yalla yàlla aljana encore une fois de plus. ndax toog fi ba euleuk wala semaine bi lem di wax ci mom té lu bax rek lañ ci mëna wax euh man donté ma ngi ci yëngatu ci football bi mais man Koto sama décondo la d'abord. Sacré Cœur fi ak man presque le mat 20 ans Koto gis nañu ñun ñu sommes venus place chaque goudi, ñoo venus suñu grand place bu Tangor. gi ñëwee muy nit ku baax nit ku am sommes ci nit am ko am yar Koto au service des gens serviable la ku oyof loon ku oyofoon loon ko to vraiment fu mu ne nii ñëpp a ñàkk réew mi ñëpp a ñàkk mais ñun waa Sacré-Cœur ñoo gën a ñàkkati encore Koco Koto ku baax loon Koto dafa doon boole nit ñi Koto ñim jàmm rek la amalantoon nit ñi foo ko fekk moo ngi ree di kaf di ree loolu kooku moo doon Joseph Marie François Koto ci ba ñëw ci wàllum football bi nag def def loo xam ne. dafa marqué Sénégal bi manam Sénégal ñepp xam Joseph Koto amul ben sénégalais bu fi ne même xalé yi fekkewul ay jamonoom dégg nañ turam nekkoon na footballeur bu talentueux nekkoon coach bu am kam-kam ba paré am am am ay résultats ci coaching bi vraiment euh, euh, perte ñak nañu manam Sénégal dal mo ñak ñun ñëpp a c'est c'est très personnel euh, parce que man fuma nek nekk suma amone ma amoon problème di lijjanti ben kayit ci administration wala fop ci dëkk bi. koto laay njëkk xalaat te fu ma ko wooyee mu dëkkantel ma ko ak yeneen ak yeneen ak yeneen mais sama xarit loon bu ñuy mujjee gisee ñu ngi añandoo avec les anciens footballeurs sénégalais moom ak ñoom Zam ñoom El Hadj ñoom Zal ci loxo ñoo ñooñu la gaañu tey ñu ñëpp ñoo nekkoon doon jour boobu Radisson ñu toog waxtaan kafre fàttaliku ay jamono waxtaan après ñu ñu ñu ba ñu ñu taqalikoo mu ne mais naa la gis grand place ba ma dinaa fa jaar est-ce que gars yaa ngi fay toog ba léegi mu ne ma gars yaa ngi fay toog ba léegi daal. suñu bëgg waxtaan ci waaw côté wu ñëpp loon daal bu bëggee wax ci côté lu baax dañ leen fi toog ba suba ba ëllëg vraiment fu mu nekk ni ñu ngi koy ñaanal fu mu fu mu jëm gënal ko fu mu jógee te te xam naa ne réew mi dinañ ko jox cër nañ ko jox lu mu yellool ci ci ci ci ci génn gu mu génn àdduna ma koy massaw euh, El Hadj Diouf mi taxaw parce que nitam la rakam la

temps yi yëpp li Aliou doon wax mooy bi nuy mujj gisee sunu réunion bi nu amoon euh, teeru bi lan lañ fa doon waxee nan la ñuy organiser euh, la journée de Jules François Bocandé en Casamance looloo taxoon ñu war a regrouper wu pour semaine prochaine et tey jii xoolal yàlla def jël na ko pour wax rek ni kuy def wala kuy xalaat rek na xalaat lu baax looloo tax ñu ne rafet na nu njort te yàlla na ko yàlla yërëm